Guèye production daanaan di jàmbaar ji moo àndati ak Abdoulahat Ndiaye borom combinaison yu neex mbokk yi déglu leen bés bi benn bés la le 22 octobre ci arène nationale du xam ngeen ñaa bu ndaw xale bi saf xorom lool te dëkk géejawaay te mën a bëre moo war a jàkkaarloo ak bawol bawol gi buur siin doomu Medina ak bawol ndaw lu rëy mbokk yi Guèye production ne lambu jooju nag la ñu jël daal di koy jagleel les managers de la lutte combat spécial bi war a dox ci diggante armée bu ngéwél T-Max boobu la ñu jël daal di koy jagleel Fadel social borom Dakar Dakar Buzz Bétisé dina fa jàkkaarloo ak Douglas numéro 2 général bu Pikine jàkkaarloo fa ak Vita mbokk yi Lakam dina fa jàkkaarloo ak Number One Bébé Tay jàkkaarloo fa ak Fils de Ben Dame Junior dina fa jàkkaarloo ak Boy Waranka Fils de Ndéene jàkkaarloo fa ak Bébé Zoro Paul dina fa jàkkaarloo ak Doomu Loro waaye mbokk yi appliqué ak Fils de Kati dinañu fa jàkkaarloo ci le 22 octobre ci arène nationale ñu ànd ci ak Dieye production mbokk yi du xam ngeen Dieye production la Abdoulaye Ndiaye la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 waaw mu nekk nag koo xamante ni macha allah nit ku baax taalibe Seydi Hadji Malick bi taalibe Serigne Babacar Sy bi ñu fas yéen waxtaan ak moom ci lamb Ama Baldé Modou Lô ak yeneen combat yi maa de lay ziar bu baax. waaw ça va mbaa lépp jàmm. yëkkatil kii micro bi. asalaamaaleykum mbokk yi ñëpp maa nuyu mu nekk sa tur ak sa tant Euh, ma may sant ñëpp quoi di wax ne jërëjëfe sëriñ Babacar si jërëjëfe sëriñ Babacar si jërëjëfe sëriñ Babacar si mhm. may sant ñëpp te may ñaanal sama ñaari waajo tam yàlla xaare leen àjjana may nuyu tamit ñoom Kool sama xarit yi ay ñoom Abo ñoom Lamine Ndour ay ñoom Jibi ak tamit jandal Mara bu nekk Paal sama mag la instant yi tey la euh, am de ma quart de mhm. may ñaan yàlla may ko ndam mhm. tey incha may nuyu ñëpp nag sant ñëpp di di nuyu ñoom Alain ñoom seex bi seexu seexu maam Balla yi. Alain moo ñu boole ñu ñaar. ah, ah. <laughs> Alain ak seexu maam Balla yi ñoo ñëpp ah. maa leen di ak tamit moo nekk MB. Mhm. ah MB en France. Mhm. Ah. ok nuyoo bi am na solo mais bu def si kot. Mhm. ñu gis na wax dëgg yàlla bu moom da nga daan ñaan ci làmb. topp doog patt ak organiser ah. léegi ñu gis ne buuba léegi di aalu buuba dafa mel ni instant bi buzz la wala tamit dafa war a mën a imposer boppam ci li nga xam te ne moom mooy ci làmb lan moo tax nga bàyyi ba heure bi nga soog a feeñal sa bopp waaw xam xamoon làmb moom man ak maa yàgg yàgg yàgg si làmb parce que man instant may am six ans la fa làmb xam-xam ok ba am six ans fan fan may dem fan may dem xam naa ñoom ko su baakar yi lu yàgg te ñoom ñëpp moo waxoon ne génnal mm. ma ne ko déedéet yow mi yow heure génn moo jotagul man yàgg naa si làmb waaw ah, mais man chaque jour gars yi su ma génne man ko heure bi moo jotagul te man maa nekkul comme mara yoo xam ne internet kii nañ ko site internet waaw site internet. ok xam naa bii may ñaan sénégalais parce que sama client bëri ñooy kaas. Mm. ne pour lan ma mm. mais bii moom maa ñaan yàlla bii mooy dernière. bii si yow. Euh, mais Bouba euh, gis nañ ne comme am na ñoo xam te ne ñu ci biir làmb. waaw ku ci mel ni ñoom sëñ Mor ñoom Sa Touba. tey nga ñëw rejoindre leen ay Samb Ndour ñoom ñëpp ñu ngi fi de nuyu ñoom ñëpp au passage. ñu gis ni ci combat Ama Baldé Modou Lo bi sax nga gën a fësee. ñu gis ni yaa ngi contrecarré ki nga xamante ne moom mooy Sa Touba. nekk ci camp Modou Lo. waaw moo tax Sa Touba génn na dóor mu daanu. buuba contraire ko lu xew. waaw moom saa moom tey sa ki yoon naa moom ki yoon naa moom ay kii yam sax man maa dul si woo kiyaat parce que hmm. daa kenn ku ma woo démb si guddi muy Pape Sarr sama mhm. xarit sama lépp mu ne ma ngir yàlla ak yonte bi bul waxati si Pape si si si kii Sa Touba mais nag man leen rek laa am lu lu may wax Sa Touba séeréer bu bu bu mu ameel xaalis muy sëñ Bas mu far mu dem fay ko mooy borom kii sengoor yu muy yor yëpp nee ko far far mu fay ko loolu rek laa am lu may wax ak moom. sengoor yu muy yor. sengoor yor. mooy yi mu liggéey séeréer la benn séeréer la. Sa Touba liggéey see kii ay sengoor xam nga ne sengoor. Si liggéeyul sengoor yi. kon dafa jàpp ne fam ñoom ñoo te dañu nekk ci làmb mais nekkul dañuy liggéey mbër bi dañuy dem feneen ñoo di liggéeyal ñoo di jox mbër bi waaw loolu bëri na si làmb ji ok parce que tey xamoo tey euh, kii comme Mara booy dem tey fan mu jox la ay sengoon mu ne la après fan nga indiwaat ko xam nga loolu moom mooy lool ok man man soo ñëwee fi dama lay liggéeyal ma ne la après fan nga jël ko waaw ah, c'est pas pour moi yow koy jëlal ok waaw mais lan moo tax tey euh, ñu gis ne Sa Touba nag ak lu man mënti xew dem na ba bokk ci làmb mhm. ndax gis nañ ni day ñaanal ay mbër ñu ñuy am victoire ñu ciy teg suñu bët est-ce que tamit nekkul ni pour ñëw danga nga bëgg a ñëw xam nga rek pour imposer sa bopp nag Sa Touba ay sëñ moor mhm. xam nga nga commencé di leen ruube yow nag da barki dem da ngaa ñëw aral na ruube ñëpp waaw c'est que loolu pour lan ma kii ko man maa waxoon ne sax man maa dul génn si ay média affaire yooyu. Mhm. mais man maa gis ñoom affaire bu ñuy defee ñu ne ñoom ñoom moom làmb jeeg. affaire yooyu. Mhm. man la moom euh, barki Serigne Babacar si laa wax musuma woo mbër ne ko carrément kaay kaay kaay ma kii la kaay wutal la ñaan wala dara. kon da nga jàpp ne dafa am ñuy woo ay mbër daal ko. kaay ñaan yow fii yow ñaata mbër la fi woo. man mii man sama mbër moo toog palaatoo mu ne ko fan mu woo ko ne ko sant ma. parce que sëriñ ba su nekkee fen yàlla sëñ baago yombal xiyaam yàlla boo ëpp boo ma ko gis su nekkee lu may wax amul waaw mm-hmm. su nekkee comme yow li nga ma la wax si sëñ moor yow yaa si dugal non sëñ moor moom instant bi moom mm. macha allah mi ngi def bës ndax gis sëñ ñi daaw mm. waxuma amul defet quoi mais li mu am ci defet wul de ren tamit li mu ubbee ñëpp am victoire macha allah instant bi moom moo gàddu bës bi waaw xam xamoo tamit sëñ moor man maa ko dégg far mu totontu mu ne man maadul waxal benn xale boo xam ne day téye micro. Mhm. li li wax si man man maa wax moom si ba baayam laay waxal. man nag may ñaan sama mbokk yi sama mag yi sama lépp bu ñu mer. Mhm. ñoom ñëpp ay ñaan kat mais déedéet bàyyi leen code ku saaga seen baay. Mhm. non bu leen ko wax dara. bu ko def si code. di saaga na sama baay ma sa baay laay. la la laay kii quoi. non est ce que nekku ni comme yow booy nga quoi foofu lay waxee rek. non man xale laa. xale nga xale laa mais tamit ñoom dañoo war a xam ne garab garab si kaw lay fekkante. ok yow ñaata mbër nga ñaanal daaw bari na. barki sëriñ Babacar soo laaj soo weddee nga laaj seex yi mun mun ma ko compter seex yi sax dañ doon wax ne wutal kaay ak bind ma ne ko man lii nekkul nekkul genre palmarès quoi nekkul loo xam ne gars yi dañ koy compter. ñoo xamante ni ci làmb lañ nekk lépp lépp bëri na. bëriwul bëri na trop parce que kii tey saa. Mhm. saa yow mi yow xam nga saa fan moo ngemboon Tafa Mbër contre Gamou Gueye saa mm. saa yu barki sëriñ baaw combat boobu da dama maa jàpp gàmmu géey ba saali laaj ndax ndax ndax ñun ay nomboom ndax ndax kii moo ko jël gàmmu géey mm. ba boobu combat bi jeexee yaa jàppoon Tapha Mbeur moo lu ma def Tapha Tapha mm. Mbeur benn jour maa maa ñoom beleen da ñoom ñëpp sax ñooñu sama mag moo leen ñaanal te man sëg lam maa ngi fa benn jour ñoo fa ñëwoon fa ñu teg <laughs> fa ñu teg bool quoi tegal ñu bool affaire yooyu saa ñëw rek këf këf ndawal bi quoi comme yëfu see kii rek. mooy yëfu mbër waa. jour jour jour boobu daal damaa woon sama mag soo ma joxee ndigal léegi léegi ma faj ko. ndax la ah, comme comme lu lu mu def noonu quoi. ndawal bi mu jël dem yoonu. waaw mais moom lépp moom day kaf rek. waaw non moom loolu la quoi jour boobu nag fekk maa ngi gën a nekk poids sa affaire yooyu. après ma ne kii de moom yàgg yàgg làmb benn benn benn jour fan mu boole ñu. Mm. waaw ah, contre Tava Mbeur man maa indi woon Gamou ok ak ah, Gamou Gueye maa ko indi woon combat boobu. ok ok euh, jour jour combat boobu ay menaces yu sëriñ ay vocalu sëriñ yëpp lañ ma envoyé. ñii ne code moo dul tëdd tey code def di mais xoolal Gamou Gueye Gamou kii moo koy. dóor kii Gamou Gueye mooy dóor Tava Mbeur tey tey Tava Mbeur fayul. kon ni nga ko téewee noonu woon yow dama damaa bëgg nga nga xool man ñu may yor yow ay ñoom ñagas seen combat. Hmm, ak ñan. ah mbër bu mag di nga di nga ngeen bëgg mbër bu mag. waaw mbër bu mag ah. man moom mënu maa la lim comme ça man maa la mënul limal ne. mbër bi man moom maa nekkul. Ah, comme gars man maa nekkul comme genre mara yoo xam ne mosuñoo ngeem euh, mbër mbër bu mag. Ah, saatu wa mosul ngeem mbër bu mag nee ma kii la ngeem. si mbër bu mag VIP. ah Modou Lo la di. Modou saatu waa mosul dugg fu Modou Lo li ngeem boo wallaay azim Modou Lo moo sa saa moo may dégg Modou Lo su nekkee gëm na lu mu gëm ah su nekkee lu may wax amut billaahi wa barki Serigne Ba musul dugg fu fu Modou Lo li ngemboo ah, def si code yow moom. su su kii man man comme ñoo ñoo laa xam anaa moo ne saa su ma ko waxalee lu mu ko xamal wala dara. moom moo ñu wax si télé ne pour ma waxal ko. Oh. non lool jamais ma def ko mais tey fan ma won la ay preuve ah preuve kay bu ci kii bi direct bi. non non yow laa koy wan pour en cas mais yéen lan la dafa mel ni siisante bi dafa commencé ndax gis nañu nag wax dëgg yàlla nag suñu lamb ji nag gars yi yéen nag commencé ngeen koo kii de yéen dafa mel ni siisante bee commencé wala da ngeen di bëgg a euh, jaay seen bopp wala da ngeen di bëgg mbër yi gëm leen lu xew ndax gis nañu léegi yéen maara maara lamb yi laa koy tuddee. waaw commencé ngeen a bari quoi. xamoo tey. Mhm. ñu bëri am na ñoo xam ne fa ñoo may wax ne yow yaa bëgg xaalis wala da dara. man maa dégg sëriñ moo ma kii naa oto am naa oto am naa kër. waaw ah. yow man âge vingt ans laa am njëgu mais nag man maa nekkul si sëriñ laa man chaque jour ma xëy li joobi wallaay azim lii ne nekkul sama liggéey mm-hmm. lii benn don la rek muy wax oto man su ma bëggoon oto tey yow yow mi yow comme comme comme la far la yore ah ay parking oto la yor mm-hmm. su ma ko waxoon Alain oto laa bëgg mu jox ma seexu maam maam maam balay mm-hmm. ñoo ñooñu su ma leen waxoon ne tey tey oto la soxla mu fa ñu mais man maa buggul oto. ok ah, ok comme eh, daaw nee nga ñi nga ñi nga ñi nga lii mënoo ko compter dégg naa instant bi mbëri ñi ngi ñëw di inscrire baare nga wala baare go barki Rosulaay dama bëri ba mbëri ndaw yi comme petit combat hmm. su nekkee lu ma wax amul petit combat yi sama rakk mooy nii petit combat ku ñëw ma la man fees naa. kon baare ngay saa bi. parce que man man maa soxlawul petit combat. petit combat petit combat loolu neewul. ok mbëri ce que tey ñoom bu ñu bu ñu indee mbëri mbëri daanu pare nga yow. pour jël leen pour kii leen mbër bu nekk si ñoom. Mm. am na ñoo xam ne nag du ma wax seen tur. am na ah. ñoo xam ne nekkoon nañ si ñoom baaxul ñu ñëw si man. ah am na ñu def noonu transhumé. non bëri na mais nag jamais ma wax kii kii la parce que ñoo ñoo ma dem ba jox cër. ok waaw. Ah. Mm-hmm. mais daal moom lu lu lu mu la mën a wax. Mm. mooy lan man comme leen laa bëgg te ren yow mi yow fan nga seere ñu. Mm. saa mu taxaw si tatale ne carrément man maa yor trois mbër. man tamit man tamit moom man bu bu ma yeneen mbëri fayre comme mbër yu ma am buñ ma fayre fa ñu ñëw si man ma ñaanal leen si gratuitement. mais moom daaw ay victoire am bari na de ndax kaa defe dong la am te. am na il na plus de soixante dix neuf je pense victoire. yow yow yow mi yow yow tey. comme combat Baye Ma Ndiaye bi passé. waaw kan kan moo kan moo moo ko téye. Saatuwa moo téye Baye Baye Ma Ndiaye. Baami Ndiaye albarke Moussa wóoruma de franchement. Baami Ndiaye ak kii xam nga xam nga comme lan la saatuwaa def nekk si kaw nekk si kaw ñaanaloo mbër bi nekk si kaw li li li li woo saawaay li koy wax ndax ma wàcc kii kooku na ko toogal ma wax la secret yi tey waaw. ok mais mais mais mais yéen da ngeen di jàpp ni làmb dafa am xaalis ba pare moo tax ngeen bëgg a wane seen bopp lu xew ndax gis nañu bëri. li ngeen def nii mbër yeeko daan def mais dafa mel ne yéen kenn ku nekk day vanté di wane ni ñëwal ci man li tax loolu nit ki je pense soo xamee dara da nga toog ba gars yi ñëw si yow mais gis nañ léegi nag wax dëgg yàlla a koy bëgg a accaparer de. waaw léegi yow question. Mhm. yow ñaata at far laa nekk fii ñëpp li ma wax kot kot te man maa musul génn. te man xaw ma la woon de. voilà est ce que nekkul ne Ama Baldé Modou Lô bi dafa def buzz moo tax kenn ku nekk bëgg a profité pour bëgg a wane sa bopp. non xam man mi man tey man mi man ay waa ah waa Pikine nga. waa Pikine la ok te tamit comme man moom man moom Ama su ñëwee si man ma ñaan su ñëwul si man ma ñaan su toogee ma ñaan su waxee ma su su waxul damay ñaan. mais combat boobu nu gisee ndax gis nañu Ama de wax ji bari na. bu ah, bëri ah. combat bi deret. dégg nañu ne combat boobu ñoom ñoom ñoom ñëpp wax nañ si ah. ah. jaru may lim combat boobu seeni i biddéew dafa ki nu mu tudd seen i biddéew xuma dafa lan dañoo bokk biddéew combat boobu bu ñu bëree day bari deret. na yi farlu combat bi du am dem na ma naan ah, Ama Baldé parewul médical mais combat boobu en tant que maanaam wax ma en tant que ki nga positionné ci Modou Lô. Euh, boobu yow nag nga ko waaw comme comme combat boobu nag na ñëpp day kii kii nànk waaw na ñëpp def nànk. Mm-hmm. parce que combat la tamit mais comba comme maaraay yi kon affaire bu ñu seetal làmb. Mm-hmm. loolu nekkul seetu làmb. ok parce que yow soo xoolee yow depuis boobu ñu jàppee affaire bi ku nekk ñu wax ne Modou mooy daan. ok waa léegi dama lay laaj suñ ko rapporté. Mhm. comme comme affaire bi njëkkoon nañ ko jàpp rapporté ko. Mhm. ah kon ba tey comme ça seet bi comme noonu noonu lay continué. di mais ñoom dégg nañ leen ñu ne. Euh, Ama Balde moo jekkoon bu njëkk ba. ah mais après Modou moo jekko. nii nii waaw. ah kon boog day day nañu kii rek xaar ba ba jour ba man daal jour ba. Mhm. lu mu la mënti wax mooy man moom Ama suñu mag la suñu lépp la waaw te man. benn nit nit laay topp. Hmm. Ah, Pape Sarr ku ko noonoo ma noonoo la sama mag la sama papa la sama lépp la waaw en tout cas daal ma lu ma mën a wax ah, ama man mii man addiye Sonko fa laa laa koy def. barki Serigne Babacar Sy dama koy ñaanal addiye Sonko. Ama ma su su man soxla wu ma fay man soxla wu ma xaalis. yàlla xam na ne am na ñuy ñëw si ñoom si sëriñ mm-hmm. ñu laaj leen damay wax man amul nëbb saa dabaa am na client bu ñëw si man 400000 la la ko saatu Touba fay il fayee ko man xam nga comme ñaar laa ko fayee ko si ah, barki sëriñ Ba addiya sëriñ Babacar Si laa ko wax. ah mais tamit nit ki bu lay liggéeyal comme ki ci benn saa Touba ñëpp xam nañ ko te macha allah gars yi gëm ko est ce que nekko tamit nit ki bu lay liggéeyal te na la 400000 wala 500000 bu la tamit. waaw mën nga koo fay. c' est que moo wax la dara gars yi léegi business lañu bëgg a defee sëriñ. ah mais yéen nag ak pare ngeen suñu làmb ji de. non business lañ ko bëgg a def si làmb ji. ok parce que soo gisee fa ñuy jaay noonu. Ah. xanaa amoon ne tey am na lu affaire bu ñuy def si làmb loolu bokkul si làmb. muy lan. man benn man man man maa ngi gis foofu ay ay wa waaw payesaay ma gis euh, ay bal mm. mais nag comme comme comme ku yor équipe na euh, waaw gis nañ gis na bal waaw pour lan bal yi que du comme nii rafetal rek wala mu nekk tamit ay kii tey far ma wax la uh-huh. tey su ma waxoon sama tur tonton uh-huh. kon fi njëkk a nekk roi des arènes uh-huh. kooku kooku moo doon ko ñaanal sama tonton kooku ak sama yaay ñu day baay ki ne yéegi ne ok su ma waxoon turam yow moom moom xam na ko man lii moo nekkul ne damaa ñëw rek ñaan de. d'accord damaa doon doon doon samay maam doon sama tonton. ok ba mu génn àdduna mu ñëw si man. léegi saraxu fur wi man laa lay laaj. waaw comme loolu am na. waaw oh, sarax fruit lan la lan lay gi lan lay def ah, xam nga xam nga moom kii moom sarax mooy loolu sarax tey mën na fànk mën na tuune mën na kii mais yéen bëri da ngeen mais yéen ñi indi bëri da ngeen bëgg sarax fruit ah ñoom la rek man moom man moom képp ku may mhm. musuma génneel ni sarax fruit mais fruit bi pour lan la non ah ñoom ñoo xam ñoom non comme yow non xam nga parfois sax nit ñu jekki jékki même du bër ñu ne génneel fruit wala nangam mais fruit pour lan la waaw xam nga loolu tey sarax la tey yow su nekkee ñoom comme tey am na ñuy ñuy kii xaatim mhm. am na ñoo am na ñoo xam ne comme ñoom daal ñoom ay yóbbu comme ñoom daal ñoom suñu xoolee affaire woon leen firi ñu ñu ne firi. Hmm. waaw man mii nag man maa bindul xaadim comme ñu ñuy kii man def ma loolu. ok waaw man yëpp kii laa yor. Hmm. mais tey ah mbër est-ce que parfois yéen di ngeen gis mbër def ngeen indi mbër. waaw mu def benn signe boo xamante ne kiw daanu la wala tey est-ce que mbër dina leen seet si. ngeen xam ne jour bii du baax. est-ce que tey di ngeen osé ne ko tey dañ lay daan. <laughs> yow loolu mun naa si am ay seede. ok man dama ko def mbër ba sonn. Mhm. dafay ñëw sama néeg. mu mhm. ne ko tey du baax. mu ne ma da ngay dem ma ne ko ñaanu ma damay bañ am daal di defet. ok damay xam ne lii du baax mënoon naa lim bëri mais loolu ko. ok waaw kon dina la daal. a loolu a en ah, ah, kay arrivé na ma mbër bi toog mu ne ma ndax mënuñu ko toog mu ne ko saawaay. Mhm. man nekku maa xam mën a tourné mënu ma ko indi. ndam ndam di parce que loolu dangay wóor ne kii tey moo far moo bokkul si làmb ji. ok est ce que indi mbër ci digg géew ba ngeen jékki-jékki ngeen yoroon victoire parfois damay dégg ñu naan victoire bi dañ ko nan lay demee. yow tey comme moo moo nekk daal yow yow mii yow kii laa lay jox quoi benn benn exemple rek laa lay jox. Mhm. bal bal Balla Gaye contre mhm. a booy kii mooy jàpp tànk Balla Gaye soo mu nga woo Alain Pape Sarr seex yi woo ñu bëri sax mun na ay ñoom kursu ba ba kii soo ko léegi mu wax la ko un mois laa ko wax ñëpp wax ma ne génnal wax ma ne ko man nekkuma sëriñu média ma ne ko foofu lay jàppee tànk bi te Balla foofu lay daane Boy Niang foofu la ko Boy Niang di daanoo non non foofu la ko Balla li daanee laa wax léegi far kii woo ma Pape Sarr ak Kañ jour boobu kii moo fi ñëwoon Pape Sarr kaañ woo ma. wax ma ne ma ndax code ndax mën nga koo tourner. mu ne ko waaw mën naa koo tourner. kon yow yaa daan Balla Gaye. xaw ma ne maa ko daan mais man lañ ko laaj ma ne ko ma génne leen. mais Balla Gaye kon moo waroon daan Boy Niang. Balla Gaye moo naroon moo waroon daan Boy am na ay mbëru géejawaay yoo xam ne sax wax naa Ba am na mbëru géejawaay yoo xam ne. Mhm. instant yii Balla a moo léegi ah ok kon di nga gis benn victoire. ko après di nga ko mën a euh, kii. nangu moo tax ñoom. Mhm. ñoom moo ñu bu ñuy def nii moo tax ñu fa ñu nangu seen yëf parce que ñoom ñu koy dem stade. man kon nag maa dul dem. parce que man maa bëgg a ten ten tenir sama ndam quoi. man damay bëgg a téye sama ndam. pour di def ay sarax ak yooyu. pour assister daal pour assister ko fii. nga ne mën naa ko wala dara. ok mais Balla Gaye euh, Modou ak kii loo ci gis Ama Baldé combat boobu man la Modou Lo ak Ama moom. comme lu lu man daal lenn la. mais loo gis. waaw man moom comme lu ma gis man damaa wax ne sax man maa lu si waxaat. waaw mais loo gis ci combat boobu. man daal moom su ma doon joxe favori. Mhm. Ama laay jox favori. foo teg loolu. Ah. ci li nga gis. si lu ma gis nangul nañ la ko waaw gis man. ok Ama Baldé laa bëgg mu daante moom laa jox favori mais mais mais yow ci li nga gis combat bi dina am te tamit combat bi dina am ndax gis nañu lépp nag ndim yëfu yàlla suñ borom la mais comme que léegi yéen dañ leen a gis dañuy da ngeen fàtte loolu day naan dina am wala du am te da xaw a fàtte yàlla tuuti waaw euh, combat boobu noonu yow noonu gis nañ ay papier ñëpp génn na ñi ñi naan du am mais yow nan ko gisee man daal comme hmm. loolu comme loolu comme loolu loolu laa man maa gisul comme man mënu ma la wax na day am mënu ma laa man loolu man maa ah, ah, def si code nag yow ah, ma laa non déggoo lu ma la comme lu sëriñ li wax ne du am. Hmm. yow combat boo xam ne yow ñooñu wax ne ay la cinq la nga ne du am yow eh, jàpp nga ne combat bi day am incha allah. incha allah day su amee. man gëm naa am naa yaakaar ne. Hmm. am naa ya ya kii ne man nag na kii wax rek. saa mais danga su amee nga wax de. su amee. waaw su amee. lu la kon wóor la ba xam dina wal ma de. Hmm. Ah, xamoo tey yow ñun sëriñ bëpp buy ñaan. tey mun nga gis tey lii yow. te keneen ki fan moo lu gis loolu. mais parfois nag li ma si jaaxal mooy yéen da ngay da ngay xaw a fàtte tuuti yàlla suñ borom. ndax da ngay jékki-jékki nit du xam sax subaam luy xew. nga taxaw ne lii nangam a nangam loolu loolu pour lan la confiance bu ëpp la wala lan la. non xam nga ñooñu tey ñoo wóolu seen seen affaire rek. ok te lii nii tey. Hmm. nekkul loo xam ne day kon am na ñoo xam ne ñoo ko dem jàngi ñooñu ñooy wax mu teggeeku. ok. comme am na ñoo xam ne dañuy dem fay nit mu jox leen ay jàll ak jàllang ak affaire yooyu wala ñu dem jàngi loolu moomuñu ko ñoom mais képp koo xam ne moo juddu judd wala mu nekk si famille. Mhm. man sama famille lépp ñii xale yi la am na spécial kenn koo xam ne xaatim rek lay bind. ok ñun ay jigéen sax su ma la waneen jigéen yi. dañoo wax ne déedéet daal lii benn doono la boo xam te daa wàcc ci yéen. waaw kon làmb rek ngeen di def. am na koo xam ne football. Mhm. côté Saint-Louis yëpp moo moo moo ko jël. yëpp moo ko jël Saint-Louis Paal Louga yooyu yëpp moo jël. waaw kooku kooku kooku moo nekk sama grand kooku kooku dafa ne carrément ñaari ñaari ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka. dëgg la de moo tax mu fan mu dem yoonam waaw mais daal Ama Balde Modou Lo ci kàttanu yàlla. Ah, Ama Balde. Hmm. man laa jox foofu te incha allah man hmm. moo xam nga tey munoo ñaanal ko tey daanu. Hmm. parce que man làmb moom. mais ci côté ñaan bi bu fekkee loo gis xam nga ñoom dañoo joxe seen avis mais loo gis. man dara incha allah. comme li ah. ma waxoon keroog si benn site. Ah. incha allah roi bi mooy ñëw Pikine. su neexee yàlla. incha allah te te ay le 6. kii naa far nga ñëwaat fi dinaa fi ñëwaat. waaw bëgg naa nga ñëwaat mais kii combat bi nag gisee Siteu Lac de Guiers wala xoolagoo ko. non Siteu Lac Lac de Guiers xam nga loolu nekkul sama làmb. xoolagoo ko man déedéet xam naa si dara mais nekkul sama man lu man lu ma bokkul nag. Ah. sama yoon newu si. xam nga si dara. parce que yàlla xam naa si dara mais nekkul sama làmb lu nekkul sama làmb lu ma encaissé wul sama yoon newu si. mais su ma laajee sama làmb. waaw mais Siteu Lac de Guiers nga ne xam nga si dara. xam naa si dara xam nga kii daal waaw. Ah. barki Babacar si. barki Babacar si. waaw mais nekkul sama làmb parce que soo waxee rek kon kon nga may bë bë yeneen sëriñ nekkuma si loolu. Mm. mais daal xam nga kii daan. xam naa koy daan bañ ne suba la combat bi dinaa fi ñëw. Oh, oh, oh, wala wala nga woo kii ma. loolu dama fi ñëw su ma fi ñëwee jël la denc émission bi. voilà nga denc ko. ah su la neexee man kay man kay maa ragalu lool. ragaloo lool. barki yàlla. en tout cas kontaan naa ci yow de. waaw lan ngay tàggatoo. léegi man am na leneen lu mu la bëgg a wan. ah ca ñëwoon. parce que affaire moom preuve la ñoom dañoo wax ne mu génnee preuve. Mm. léegi man maa bëgg a génnee preuve. Mm. am damaa bëgg nga ñu ñu ko sa nopp. ah ma dégg ko fii. ba caméra yi ndax comme que nee nga la te lépp ci la rek. waaw mais tax lii jar na ko. non fan moo ko jar parce que ñoom ñoom ah, ñoom ma siiwal ah. man ñii man maa leen xam te ñoom ñoo ma man amul benn sëriñ sëriñ bu wax ne code ko jàngal A B mu ñëw si man farma fay la. mais est-ce que ñoom dañuy ñëw si yow pour nga kii liggéeyal leen ay mbër. ñëwul si man mais samay gaañ yoo xam ne dañuy ñëw si man. ñoom ñoo ñëw leen liggéey te ñoo ñëw ñëpp xam nañ kot soo leen téyma loolu ni nga ne leen kot laa bëgg a def lii dañ lay wax ne ba baal kooku ah, man yàlla lii si boppam don la moo tax sama gars yi li wax ne kii ma ne leen kot mun na gérer boppam. acca tàggoo Euh, kii kii bi moom kii naa si lool kontaan naa si lool. Mm-hmm. fan may santaat ñoom seex bi ñoom moom su nekkee comme ñooñu moom sama gaay nañ si mm-hmm. kii bi gam gàmm bi xaalis bëri lañ ma may. pour gàmm ay ñoom Alain ñoom ñëpp xaalis bëri lañ ma may. Alain dafa waaw may nuyu ñoom Kosu Bakary. Mm. may nuyu ñoom Moustapha. Bakary Sakho sama xarit. lambu kii lambu lambu mystique. Uh-huh. ñoo ñëpp samay gaay nañ. waaw ñoo bokk xarit. waaw waaw may nuyu tamit sa kii bi sa. waaw gën a xam quoi. waaw kon en tout cas ñëpp daal maa leen nuyu may wax ne kool bu zam na ko gars yi jël nag. kool bu zam. kool bu zam. kool ak naqari wutal adversaire. kool bu kool kool bu kii la code la may may ñaan yàlla kool am combat combat bu rëy man maa mu combat kool rek man far laa soxla. barki Serigne Ba ay combat kool dama siy takk rib. Eh, eh, eh. waaw kontaan jéey production daanaan di jàmbar ji moo àndati ak Abdoulahat Ndiaye borom combinaison yu neex mbokk yi déglu leen bés bi benn bés la le 22 octobre ci arène nationale du xam ngeen ñaabu ndaw xale bi saf xorom lool te dëkk géejawaay te mën a bëre moo war jàkkarloo ak bawol bawol gi buur siin doomu Medina ak bawol ndaw lu rëy mbokk yi jéey production ne lambu jooju nag la ñu jël daal di koy jagleel les managers de la lutte combat spécial bi war a dox ci diggante armée bu ngéwél ak T-Max drapeau boobu la ñu jël daal di koy jagleel Fadel social borom dak Dakar Buzz dina fa jàkkaarloo ak Douglas numéro 2 général bu Pikine jàkkaarloo fa ak Vita mbokk yi dina fa jàkkaarloo ak number one bébé tay jàkkaarloo fa ak fils de Ben Dame Junior dina fa jàkkaarloo ak Boy Waranka fils de Ndéene jàkkaarloo fa ak bébé Zoro Paul dina fa jàkkaarloo ak doomu Loro waaye mbokk yi appliqué ak fils de Kati ñu fa jàkkaarloo ci le 22 octobre ci arène nationale ñu àndi ci ak Dieye production mbokk yi du xam ngeen Dieye production ndaanaan la la ba lamb